jëm ci wàllum politique li ñu wax waxtaane mooy lu soxal wérgu yaramu Ousmane Sonko tey mooy ñaar fukki fan ak juróom-benn muy amal li nga xam ne moo a xiifal lan lañ mën a xaar ci wàllum jeexital ci wérgu yaramam moom Ousmane Sonko. bon maa ngi préciser dara man koo koo fajul. koo gisul ah normal li ay ay données techniques rek ngay mën a joxe. ok à partir de mots yi ñuy dégg à partir de avocats yi li ñuy wax. Mhm. moo buñ ci génne ma faram fàcceel leen ko. ah mais li may wax engagé wul euh, engagé wu ma. ok engagé wul état wu santé Sonko. Mhm. mais ci mooy daal laa a expliqué. bu ñu ne la hyperglycémie ma ne leen mooy lii. bu ñu ne ma insuffisance rénale ma ne leen mooy lii. Mhm. mais moom fi mu toll ci wax dara parce que yoruma dossier ah bon am na samay collègues nag yor dossier mu wóolu naa leen. Mhm. xam naa ne ñu ngi def li ci war. Euh, te yaakaar ne vraiment dañ ci am. ok côté santé. mais ku lekkul naanul. a am. ci non lekkul naanul loolu mënul am. mënta ku lekkul. oui ku naanul d' abord ku naanul moom ñetti fan rek ñetti fan lañ la may. ok nga dem gis nga ñu ñuy réer si désert bu seen ndox jeexee euh, fa la ñuy te loolu mooy li mu jëkkoon def nag bi muy soog a dugg. Hmm. loolu la war a doon bi ñuy wax insuffisance rénale boobu dafa lekkul naanul kooku mooy jet total ba rein yi commencé bloqué. xam naa médecin yi jóg ci ay mbokkam jóg ci. bon defe naa léegi quand même defe naa ngi naan. ok ah kuy kuy kuy ku vingt cinq jours daal yaa ngi naan. yaa léegi nag li ñu joxe comme délai ku lekk nag normal kooku trente jours lañ la may. ci trente jours bon ñu ngi à vingt cinq jours bu fekkee vraiment naanul bu fekkee jotul tàndarma bi am na tàndarma bu ñu ko yónnee dégg naa. Mhm. voilà bu fekkee jotul tàndarma temps yi muy def malaise tamit bu leen fàtte médecin yi dañuy intervenir. voilà ci réanimation. ah oui parce que boo xasee ba dem taw doo fa toog ñu doon seetaan. ok ñëw pour ñu def ay intervention surveiller la. di mhm. surveiller sa glycémie sa glycémie wàccee. kooku par force moom il faut ñu remonter ko. d' accord sa rein bëggee bloqué il faut ñu jox la ndox nga démarré waat. ne hmm. nay vitamines aussi certainement yu ñuy dugal ci perfusion wu koo xam ne vraiment muy noonu. ok d' accord. kon daal ci ñaata diir lañ moon a xayma ci boo lekkulee naan léegi am ay jafe-jafe ci wàllu gerte comme ni ko avocat yi bon kooku mën na naa leen bu ñu daanantee dans l'histoire kooku en Irlande Angleterre la ma sàmm. ok cas bu rëy boo xam ne en 1981 ah ba dix personnes di def grève ba ñoom ñëpp ñu deewandoo. kii day def kële beddee kële kële remplacé ko ñuy def noonu ba mu dee ci foofu la science profité jàngale euh, grève de la faim lu muy def ci nit. ok mais li ñu seetlu mooy ku naanul ndox ndox di tout kooku moom boo toogee ñetti fan euh, say cër am na yu si yàqu ba ba jaar fa. ok voilà li ñu xool leneen te mooy ku du lekk normal ah di ñam ni lekk fii tàndar ma bàyyi fii. Mhm. kooku moom sa yaram day jeex. ah au bout de trente jours lii lay dese bariwul bon nit ñi ne dañu uute mënuñu wax euh, date précise. am na ñuy def moins de vingt cinq jours gaañu am na ñuy def trente jours gaañu am na ñu mën a def quarante cinq jours gaañu. ok loolu tamit ça dépend sa yaram lan moo nekk ci biir. sa yaram day am ay réserve bi ngay lekk depuis bi nga nekk xale ba léegi. xam nga ñun dañuy lekk pour am énergie. mooy comme oto bu war a daw. Mhm. ba Tambacounda nga dugal ci deux cent litres de gasoil. boo dawulee deux cent litres de gasoil yi. du nga am beneen soxla biir Dakar. man nga ko daw ci biir Dakar. ok kooku hmm? mooy réserve yi réserve yi tant que utiliser wuloo ko sa yaram day am day am lu mu dundee. ok muy vitamines yi muy graisse bi muy sucre bi muy protéine. ok voilà sa muscle si biir muscle yi dafa am ay protéines. Mhm. protéines yooyu dañuy am sucre. sa fois bi nekk sa biir moom tamit réserve de sucre la. d' accord mm-hmm. am na aussi euh, lu nekk sa yaram boo xam ne boo ko génnee mm-hmm. day génne suukar sa yaram mm-hmm. donc moo tax euh, adaptation bi euh, booy def grève de la fin sa yaram day am adaptation voilà ba mu sës nag mais nag bu ñu ko yóbboo réanimation même bu ne bu ko faj am na fu médecin yi di toll foo xam ne il faut ñu faj la parce que li ngay wax boo nekk boo àndeex sa sago peut-être mën nañu ko tenir compte mais boo defee crise d'hypoglycémie àndatuloo sago mhm. boobu benn papier mënatul mënatul obligé médecin bi à moins que benn bokkam taxaw ne la bu ko laal <laughs> kooku tamit euh, beneen condition juridique la léegi nag médecin yi ma xam nekk Sénégal mhm. ñoom ñu faj la que nga ñu tëj leen moo leen gënal <laughs> moo leen gënal ñu bàyyi la euh, nga ñu respecté sa sa vœu loolu la ñuy wax vœu mhm. ah, mais vœu nag day fekk nga am sa faculté mentale complète faculté pendant problème mu ne la lii mu lii weex nga xam ne weex na lii ñuul na mhm. deux bi trois nga compté bi trois kooku dafa am benn score sax bu ñu am léegi bu tuddee score de Glasgow moom la ñuy compté xam ne tey foofu boo tolloo boo tolloo quinze mooy normal bi ah ba douze treize mhm. presque yax ñu ne yem léegi nag mu ñuy kuy a compté nag ba ñu xam ne fii am na ne boo fa tolloo moom il faut ñu réagir mhm. foofu am na benn repère bu ñu am buy nekk numéro huit Glasgow huit foofu moom il faut ñu def la ci respirateur même jox la machine mu di la dimbale. nga mën di nooy ak yooyu voilà. léegi itam boo tolloo fenn ñu gis ne seeram mu jël lay ñu gisee ne am na serait ndox rek war nañ ko dugalaat. pour que sa poids normal. te léegi amul lenn loolu looy lekk te euh, amul en molécule nekkul ci butéel wala nekk ci garab. Mhm. Hmm, bu ñuy lekk ñetti euh, ñett ñeenti cër la ñuy wër. Mhm. muy protéine protéine moo lay may sa sa yaram am ay muscle. protéine boobu mën nañ la ko jox en perfusion am na benn bu tuddee astimil ñu ngi koy jaay fii ci pharmacie yi mën nga ko jënd temps boo nekkee sa euh, mat bu bu commencé jeex. Mhm. moom la ñuy jëkk a defal pour remonter sa kii. beneen bi mooy sucre sucre moom def nga ne yomb na euh, mooy perfusion yi ngeen di gis am na bu dix bu cinq pour cent am na bu dix pour cent am na bu trente pour cent. ok kooku dañ la koy branché rek sa sucre ñëwaat. ok graisse yi tamit am na léegi lu ñuy wax émulsion graisseuse ay ay flacon yu weex la def mel nu meew kooku tamit bu ñu la ko tegalee. donc su ko loolu mooy yoo xam ne nutrition parentérale. ok mën nañ la nourrir normalement ngay dox sa soxla fekk dugaloo lekk sa gémmiñ. doo lekk doo def dara. voilà loolu tamit am na. nutrition parentérale. foofu mhm. dañ lay jox sa glucide jox la sa protéine. Mhm. des na nag quatrième bi ma lay wax mooy vitamines yi. vitamines yi am na yoo xam ne vraiment c'est indispensable vitamine dañ ko déconsidéré woon lu yàgg mais après la ñu xam ne vitamine C sax bu la manqué. Mhm. say bañ day daanu. Euh, nga am li ñuy wax ascorbut sa yaram neew yi. beneen bi gën a am solo nag mooy vitamine B. vitamine B presque moo yor nerf moo yor presque même xol bi vitamine B boo ko lu bari sax. Mhm. même sa xol mën na am problème. ok kon daal délai bi mooy bu fekkee naan loo ndox ñetti fan boo ko amee dangay génn àdduna. beneen bi mën nañ cinq jours loolu mooy dernier délai bi. trente jours la nekk ci biir xam euh, bi. moyenne ok mais mën na doon avant mën na doon après. ok loolu ça dépend ci par rapport ak résistance bi. loolu ay élément technique la. ok bu ko yóbbu ci pros. ok président Sonko. <laughs> Ah. ok waaw ah, président Sonko moom mu ngi existé ba léegi ex la ñuy wax. waaw loolu la ñuy wax de la ñuy wax. loolu la ñuy Sonko moom <laughs> mu dara luñ ci jot. voilà ah, pour le moment Sonko. Mhm. ah man mënuma wax dara ci moom. mais li éléments yi ma leen jox ay techniques la. ok buñ ne la hypoglycémie sucre moo manqué. Mhm. ah buñ ne la dem nga réanimation jóge nga médecine dem réanimation ça veut dire war lañ lay jox ay soins assidus. ok hmm? mhm. kooku nag loo mën a bind rek loo mën a médecin sénégalais yi ma xam nekk fii. Hmm. Euh, te vraiment dund nit euh, nekk seen. seen principal objectif. Hmm. defe naa waruñ ko mën a bàyyi muy. ok wàllum euh, déshydration loolu aussi naka lay naka lay. déshydratation waaw ah, mooy boo amul ndox. ok boo amul ndox. biir dawee sax da ngay déshydraté. ok du nga gis campagne euh, bi ministère de la santé doon def. leen jox seen ndox seen doom poudre bi bravo muy déshydraté. ok jaare rek jaare bu sa biir dawee rek mën na andi déjà déshydratation. boo naanulee tamit mooy andi déshydratation. Hmm. Hmm? booy fóot da ngay da ngay yor yére bi nga yor saabu ran moo ci manqué. pour nga mën a fóot il te faut trois éléments il faut am saabu il faut nga am yére yës yu salte am na lan lan moo manqué ndox ndox bi boo amulee ndox du mën a set nit tamit dafa am euh, sunu cër am lu ciy daw ñoom ñaari roño yoo xam ne ñoom ñooy ñooy raxas voilà ñaari roño yoo nag bu ñu amulee ndox du ñu mën a daw loolu moo tax bo déshydraté mooy bloqué sa rein mais boo jëlaatee ndox rek incha allah yëpp del delluwaat mais loolu mën a dem ba indi euh, début d'insuffisance rénale waaw début bi mooy même bu fonctionnel bi. mais bu fonctionnel moom duñ ko dialyser. kooku dañ lay delloo ndox rek buñ la joxaatee ndox rek. après boo désir déshydratation bu ñu ko réglé rek day delluwaat. ok mais nag bu leen ko fooyee. mu yaram tamit organes yooyu yëpp dañu fragile. Mhm. mën ko ko def benn ñoon ñaari yoon mais bu ëppee tamit bu yàggee moo am ay conséquences.

def na polémique parce que moom il a parlé de euh, glycémie xaw ma. élevé voilà ah, hyperglycémie avancée kooku xam naa faute de frappe élevé et cetera mais ku dul lekk moom hypoglycémie rek nga mën a am. ok que na nga doon diabétique bon kooku tamit <laughs> bon ay technique la waxuma ne Sonko dafa diabétique. mais ku war a am glycémie hyperglycémie élevée. Mhm. soit dañ jox suukar bu bari. ah soit soit nag dañu découvrir que da nga am diabète. mais loolu na ay hypothèse la rek. voilà mais nag moom li mu d' après li ma dégg de frappe la. ok hypoglycémie la ñu bëggoon a bind ñu def hypo hyperglycémie. ok léegi le fait ñu interdire ces avocats interdire également ñi nga xam ne moo di médecin personnel mu gis ko. Hmm. loolu it naka nga ko jàngatee. bon affaire bi combat la rek xam nga ku nekk day ku nekk day yekkal su morom. ok ah. ñu ne nekk les terroristes la ñii tamit di.